ginnaaw bu ñu santee borom subhanahu wa taala julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jaale ko ci saxaaba yeeg ñooñam ak taabiin yeeg taabi taabi awliyaullahi yeeg aarifina billahi baña ca gën a suufe ñi nuyoo di ziyaara ñu fas yéene taataan leeral jéem a leeral yi nga xamante ni mooy ay kaddu yi nga xam ni benn salaatu la bu ñuy wax jawharatul kamal nga xam ni jawharatul kamal am na benn cheikh bu ñuy wax ibnu ujayba nga xam ne moo doon wax ne nit ñi bu ñuy julli ci yonent bi dafa am ñetti xaaj am ñoo xam ne dañuy julli ci suratuhul bashariya maanaam ci jëmmam ji nga xam ne jëmmam ji niñ ko xamee en tant que muhammad ñi ko daan gis ñooñu mooy lan mooy ñu ñu tuddee ahlul dalil wal burhan ñoom bu ñuy julli ci yonent dañuy julli ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax ñoom dañ koy melal dañ koy jël def ko di ko imaginer ci seen xol ci jamono ji ñuy julli ci ñoom léegi nag ñoom lu ñu bari bari bari lu ñuy julli rek ak di ko teewlu rek euh, image boobu di gën a sax ci seen xol bu ko defee ci la ñuy demee deme dem ba di ko gis ci nelaw kon ahlu dalil wal burhan ñoom seen maqaam ci yonent bi gis ko mooy gis ko ci gént ñoo xam ne dañuy julli ala ruuxi nuraniya maanaam ci leer ruuxam bi nga xam ni bi leer la ñooñu lañ tuddee ahlu shuhud min as-saairin ñiy ci wàllu yàlla ñooñu la tuddee ahlu shuhud ñoom ci leer yonante bi lañu ñoom nag bu ñuy julli ci leeram gi leeram gi nga xamante ni euh, an nuuruhu nuuruhul faidu min al ñoom dañ koy dañ koy seede maanaam dañuy seede leeram gi maanaam ci leeram gi la seede boo defee ci mboolem seen waxtu yëpp rek buñ koy ci lañu koy teewloo di ci julli ci moom di teewlu leer yonant bi bu defee ñoom bu ñuy julli noonu la ñuy jullee kon ci leeram gi yonant sallallahu alayhi wasallam lu ñuy gën di li gën di julli ci moom rek seen maqaam di yokk dañ tuddee ahlu shuhud am ñoo xamante ni dañuy julli ci li ñu tuddee leeru maanaam nuuruwul asli maanaam leeru cosaanam ga moom la ñu naan nuurul anwaar ñooñu mooy ñaan mooy ahlu rusuux wa tamkin bokk ci ahlu ahlu shuhud ñaan lañ ci ahlu shuhud wala ayaan ñi ñuy tuddee ahlu shuhud am naa ñoo xam ni dañoo am maqaama ar rusuux wa tamkin waaw nga am ñu leen tuddee ahlu wala ayaan waaw ahlu rusuux wa ñu bokk ci ahlu shuhud wala ayaan moom. ndax ci leeru asam aslam cosaanam ci li ñuy julli dañuy dem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootul fàdd ci ñoom benn jamono anam jamono yëpp ñu ngi janoog moom loolu la yaakaar ne maqaam boobu la Cheikh Omar al Fouti radiyallahu anhu yeggoon ba mu demee ba dajeeg waa jooju nga xam ni dafa daje woo dafa yonent bi da ko nuyu woon sallallahu alayhi wasallam waa ji mujj bandas loxo bi ne dootu ci nuyu keneen mu daje Cheikh Omar Cheikh Omar ne mu nuyu ko Cheikh Omar mu ne ko du jox loxo bi kenn ndax yoon lu fa nuyoo loon lu fa joxoon loxo boobu yonent bi Cheikh Omar ne ko yonent baa ngi nii sa ko tourné ko mu ne ko du nuyu yonent mu nuyu yonent mu ne ko duñ tàggali koog moom ñooñu la tuddee ahlu shuhud wa tamkin wal ayaan dafay ñoom dañuy tàggali koog yonent bi benn jamono am na benn nit yàlla bu bu mag ci Sénégal gi am na ñuy wax ne moom sax bi mu faatoo. pour gis ko ci ci maanaam sax dafa jafe ci nelaw dafa jafe ndax ndax ndax moom gis ko ci nelaw jafe woon na ndax dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bëggal boppam ba taf ko taf ko ci boppam ba mokk aakimoo sax am na ñu nettali lu mel noonu kon yooyu yëpp ay maqaam na ci julli yonent julli ci yonent tibi sallallahu alayhi wasallam bu kon julli ci yonent bi sallallahu alayhi mooy tagg ko la tagg ko ak kañ ci lan ci meloom yi jiitu ya ñu xam ni moom la ñuy tudd ci alquran waaw boo demee ci alquran ay yu bari yonent bi la ñëw di kañ koy kañ de benn mu doon tamlihan aw tasrihan mu doon loo xam ni ay maanaam ay ay ay genre eh, junj lay doon wala mu doon loo xam ni tàgg na ko tàgg bu leer waaw ah, moo tax wa ma daama yamdaxu illa wa rahmatu tatanazzalu ala alkawni wal ahli feeg ñu ngi tàgg yonent bi rek du denj yi nga xam ne mooy yërmande di wàcc ci kawni bi loolu la yàlla dogal comme ni nga xamante ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon li nga xamante ni dafay taataan mbooleem li nga xam ne mooy tajalliyaat ilahi tajalli mooy feeñ yi nga xam ne yàlla da koy feeñ ci jaamam bi am am na tajalli ilahi am tajalli ar-rabbani ñaar yëpp am na waaw bu ko defee tajalli yooyu buy wàcc li nga xam ne mooy kaw na bi kaw na bi alam beeg mbooleem li wor alam bi yëpp ñoom dañ koo soxla waaye soxla biñ ko soxla it foog mu am intermédiaire loo xam ne moo koy taan taataan maanaam tame bu koy segg pour ñu mën ko attan ndax tajalli bu ñëwee rek wàcc noonu ci kaw na bi te amul loo koy segg bu boobaa ñun ñëpp dañuy dañuy ruy euh, leer googu xaju ci xajul ci kaw na bi loolu moo tax yonent bi neen wa ma arsalnaaka yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin bokk na ci dama la yónni ma la lutul nga doon yërmande ci euh, mbindeef yi mbindeef yërmande googu la ca jiitu mooy di taataan tajalli yooyu tame bi nga xam ne moo koy segg ba ñu mën a attan degré bi loolu moo tax borom bi wax ne rahmati sabaqat ghadabi sama yërmande moo jiitu sama mer kon gis nga kon léegi nag loolu nag moo tax moo tax li nga xamante ni mooy euh, ismun ilahi maanaam tur yàlla du ñëw directement ci kaw nu bi mubasharatan déedéet du mën a ñàkk foog mu ànd ak nubuwa foog am yonant boo xamante ni moom moo koy taataan mooy taataan tur yàlla boobu euh, tajalli yi segg ko mu mën a wàcc mooy di ci gàttal rek alquran bi ñuy jàng ni mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ak niñ koy jàngee ni degré yi bokkul déedéet ndax alquran bi yonent bi daan wàcc ci yonent bi bu daan wàcc moom léeg mel ni ku ku ku xaw a tàggalikook sago sax ndax ni mu diisee woon ndax bu la tegan tànk sax sa tànk day sa tànk bu ko tegaan bu tegaan tànkam ci sa kaw wala sa tànk day damm ndax tàngaay beeg degré boobu loolu nag yonent moo ko segg moo ko lugg moo tax bu du doon loolu ñun buñ koy jàng comme ni mu doon wàccee ci moom kon kenn du ko jàng di dund kenn du ko dégg sax di dund ndax attanuñu dee degré boobu ndax tajal yi yonent moo ko segg moo tax sallallahu alayhi wa sallam defee loola euh, bu ko defee ñu war a xam ne nag lépp loo xam ne lu feeñ ci kaw na bi rek moo xam xissiyan aw maanawiyan loo xam lu ñu yëg la wala lu ñu yëgul la zahiran aw batinan wala loo xam ne lu feeñ wala lu feeñul la moo xam xam-xam sawaun uluman laduniyan aw ibtikaratin amaliya moo xam xam la xam-xam ci wàllu yàlla asamaan ak wala mu doon loo xam ne xam bu ñuy fente la ci wàllu liggéey wala loo xam ne jëm ci wàllu technologie loolu yëpp du mën a am feek jaarul ci salaatu ala nabi maanaam julli bi yonent bi bi yàlla di julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam ak bi malaaka di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ak foofu lay jaar ak bi julli bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax lépp lo xam lépp li nga xam moy tajalliyatul asma'il ilahiyya euh yi nga xamanteni euh nga xamanteni ni ñoom ñi ngi ñi ngi wàcc ñoom ñep bokku nañu ci li nga xamni yoyé bu amul won mbooleem li xam-xam ak yëpp du mëna xew ci aduna waaye way nak yoy yëpp nak day dañuy dañuy soxla li nga xamanteni moy wasitatun yi tuddé wasitatun haqi haqiqa xaqiqatul muhammadiyya li dhuhur manam li nga xam ne mooy euh, intermédiaire bi nga xam ne mooy xaqiqatul muhammadiya moom mooy taataan loolu lépp nag li nga xam ne mooy tajaliyatu euh, yi nga xam mooy xew ci asmaullah yi dégg nga yëpp xaqiqatul euh, muhammadiya moom moo koy taataan ba ñu mën a attaan degré boobu loolu nag ci la mbooleem ci barkeem la mbooleem lu ñuy jëfandikoo ci wàllu xam-xam ci àdduna ca loola la ca loola la soso kon gis nga julli ci yàlla bi muy julli ci yonent bi sallallahu mooy lamp bi nga xamante ni mooy leeral yooyu yëpp nag bu ko defee kon ñu xam jawharatul kamal noonu la ñëwee bokk ci salaatu ala nabi yooyu comme niñ ko waxee woon nga ñëw ci euh, ñi ñëw nag ci euh, jawharatul kamal bi direct xam naa foofu la ñuy yemale première partie bi nga xamante ni Seydina Abul Abbas euh, radiyallahu anhu Cheikh Ahmad Tidiane ci moom lañ ko jëlee ويوح اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني بوب موي فقرة بنجك اللهم يا الله صل يا الله بجلي دنجكوي تيكي بنوبي ابري نيو جيل اللهم يا الله صل يا الله بجلي وسلم تنغ سلمل صل نانكو فيري جولي رك باني ديلو سي ديل دولي خيوال بوني جولي رك جولي يالله خيوالك بركيك غدو wërsëg ak dégg nga aljannaak maqaamaak yëpp a ngi ci biir julli yàlla moom moom moom moom moom ëpp na lépp kon nañ ko firee julli yàlla solli yàlla na nga jënd wa sallim da nga sëlmal ci jëmm ak yërmande gi bi nga xamante ne mooy kojug yàlla wal ak e, wurusuk yaquutu mooy trésor bi nga xam ne al mooy dëgg-dëgg wurusuk trésor bi nga xamni mo incarné euh li nga xamni moy melokan melo yàlla ak sifat manam asma allah wa sifat tur yàlla yi melokan yi alxaitati bi nga xamni moy aji pek bi markazil fuhumi li nga xamni moy centralu dégg-dégg yi wal maani ak maana yi ci xam-xam yi yoy yep après dañ ko leral wa nuurika mu tekki wa nuuril akwaani al mutakawinati al aadamiyi saaxibi alxaq rabbani wa mooy deuxième faqra bi wa nuuri yonent bi lay tagg ba tey wa ak akwaani moom mi nga ak moom mi nga xam ne mooy leeruk mooy leeru univers yi maanaam mooy leeru kaw ni yi xam ne al mutakawinat yi mooy yi nekk al aadami yi moom yonent bi nag mooy ko jóg aadami maanaam doomu aadama la saaxibil xaqi saaxibil xaqi di boromuk eh, dëgg yi di ko jóg yàlla wala ñu leeral lan mooy xaq bu njëkk bi parce que al jawhara am na ñeenti xaq ci ne al barqi mooy melax bi nga xam ne al astai mooy aji nelxati bi mazunil arbaaxi ci li nga xam ne mooy niiru tono yi li nga xam ne almaali ati mooy aji feesal li kulli mutaaridin ci bépp aji taataan min al buxuuri ci géeji mooy mooy mooy mooy mooy xobu zamani ak taabi yeeg غوثي والأواني أك نبي ما يعرفني بالله ولي يوم سن أنا مم ينام صلى الله عليه وسلم مم ما حقة المحمدية ما نلختي ملخ ما نام بورون جل ملخ ملخ نمي أنا وسيت تاو هم قبوي بنا لخيرك نيسين تتاو ينام تبي نون لمل صلى الله عليه وسلم ما يرمandi جينا خمنتني مم صلى الله عليه وسلم ما جم يرمandi جينا خمنتني لب لو خمنتني luy wàcc ci jaamu yàlla yi subhanahu wa taala moom yonent yi moom moo koy annoncé te ci moom lay jaar ci gàttal moo tax mu ne albarqi la saib muzun albarxi ma latin kulli mutaaradin mooy jox mooy jox képp koo xam ne kuy taataan lay képp kuy taataan ci wàllu yàlla kon moo xam xutbu zaman la moo xam xawsa la moo xam arif la ku mën a doon rek kooku ci yonent bi lay jëlee maanaam bu jaarewul foofu rek du am yooyu yëpp dinañ ko leeral après mu teg ca ترازم فقرب مي ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان ونورك مي سجلير بنخم اللامع وأجي ليرل الذي بنخم ملأت به كان فيصل كونك سك سك ما نم سكون بي سكون بي آه، سانفير بي الحائط بين خاني مؤجي بيك كون بين خاني موم دفا بامكنه ci ay place almakaani yoo xam ne place yu existé lañ moom yonent bi nga xamante ne mooy sa leer bi nga xam ne yow yàlla yonent bi ci yàlla la jógee sallallahu alayhi wa sallam innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran nabil alamin sa leer bi nga xam ne ci moom moo leeral sa sa univers bi univers bi nga xamante ni moo wër ay place yi nga xam ne ay place yu existé lañ متكنا اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق اللهم يا الله صل يا وجل وسلم تنسلم على عين الحق جمك دقي التي يم جيغا خمنتني تتجلى تلا فيني منها تمام عروش الحقائق اللي خاني موي شيزو رياليتي حقائق بوخولي جوهر امنا ننتي حق واخي وامنا ننتي حقكم نينكو واخي أه بوين دلو تيجي النهار دي امنا صاحب الحق بوجي قف ام عين الحق امنا ام امنا الحق بالحق من ينتي حق حق يو يب اجينا رياليتي يب مم ينب صلى الله عليه وسلم مم موي كيف فينيا كيف فينيا ندخ بوين كوي لولو تشبه لا دنين تي نيوتي أه شرحة بتكرم ان شاء الله بغرفة عين المعارف مم موي سو عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم moom mooy sew ay nil maarif yi mooy sew ngeeg sew ngay xam-xam yi xam-xam yi buñ doon bu doon la dafay xeer boo xam ni mooy xeer yooyu nga xam ne dañuy sotti ndox dafa mel ni ku lu bënn di sotteeku bu fekkoon ne xam-xam yi sew nge la boo xam ne dafa am fu muy jugee di ball yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sew nge boobu foofu lay foofu lay foofu lay jugee moo tax mu ne aynil maarif yi moom mooy sew ngay xam-xam yi dégg nga mboolem xeetu xam-xam yi al aqwam yi nga xam ne mooy yi gën a jub siraatika siraatika mooy sa yoon bi moom yonante yi mooy sa yoon bi bi nga xam ne aji mat la al asqam bi nga xam ne aji euh, maanaam aji mat la ci ci jub al asqam aji mat la ci jub yonante sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sa yoon bi yoon ban siraat mooy siraatul mustaqim mooy sa yoon ban mooy siraat bi nga xam ne mooy mooy ca ca yawmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi boo bëggee jub moom foog nga topp ko boo bëggee dem aljanna siraat boobu it foofu yonent bi la sallallahu alayhi من اللهم صلي وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم اللهم يلا صلي يلا نجل وسلم تنسلم على طلعة الحق تجم جم آه، دقي بالحق تدق دان لنا الحق أي الكنز الأعظم مو من خمي موي نمبول بمقبي معنا موي مانغازين بمقبي نيتي بنيوب كي مام جري نخ إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتصم إفاضتك ساك بمبستلة معنا مساق يأكله بخاني منك تيولو ilayka te ci yow lay dellu it ndax moom ixaatati nuurin ixaatati nuurul mi aji peeg mooy ku peeg an nuuri al leer al mutalsam bi nga xam ne mooy leer bu nëbb bi leer bu nëbb boobu mooy lan mooy xaqatul muhammadiya waaw yooyu yëpp dinañ ci indi détail sallallahu salla yàlla na julli allah yàlla alayhi ci moom wa ala alihi ak i ñoñam salaatan julli goo xamante ni tuarrifuna danañu xamee bihaa ci julli boobu iyaahu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gàttal daal loolu lañ ko mën a tënkee jawhar kenn du ko firi noonu baat par baat pour ñu mën ko comprendre parce que li mu tënk dafa bëri bu ñu ñëwee ci deuxième partie bi incha allah dinañ ko def euh, détail par détail euh, gën ko leeral ak li nga xamante ni moom la ci moom lañ ci mën a moom lañ ci xam ci suñu xam-xam bu gàtt wallahu a'lam wa a'lam bis-sawab wal qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum